الله حي صمد وباغي زوانا سكن في الواغي الله حي صمد وباغي سبحانه سكن في الوالخ ونحن في كنبي المنيع من كل سر صنيع مستمسكين بالخياس عمدا غير الأنام منتفا ومبتدا من غال في زمن الوباء نوم الله من البلاء من غال في زمن الوباء أمنه الله من البلاء من خال في زمن الوباء أمنه الله من البلاء يا من على عن زوجة وعن ولد هدن وعن جميع آلس البلاد يا من على عن زوجة وعن ولد هدني وعن جميع آل البلاد يا من على عن زوجة وعن ولا هدني وعن جميع آل البلاد وجليلي مسكني مثل ما بجاي خير منابات وجل إلهي مسكني تبابات مثل ابي بجاه خير من أبات وجل إلهي مسكني تبابات مثل ابي بجاه خير من أبات وجل عريمنا عريما آمنا وكن بعفسك كفلا دامنا والبلال غير من الجاد أسد وفيان العفاد قلنا عن سيطان يا جليل ومسكني وكل ما أهول قلنا عن سيطان يا جليل ومسكني وكل ما أهول يلاو يا فيس يا سلام يا فاي خلق الخمان بالخير يا الله يا في سياس الأمر يا فاي خلق الخمان بالخير يا الله يا في سياس الأمر يا فاي خلق الخمان بالخير نفسي ودي وتلبات نفسي وفي ثم والولد ومسكني لك وديعة النبات دنيا دنياي ما يا ففيما أن في الرزايا واثرب أصحاب النار عن جملة من الله من أبناء الزمن وجملة الإخوان من غاربي في الدين أو في الدين والأجانب فليكن اسما ودأبا يا الصمات تولني ولا تكلني لأعاد ورم جميع المسلمين بدا وسليا وسلما نصر مدى على محمد وسيلة لك ولي ومثل الختام عندك على محمد وسيلة لك ولي ومثل الختام عندك واي صلاة على آله وابلي الإجابة ولتدري في الصلاة لصعب العالي وابلي الإجابة بي جمت خبل لكن ما أوتها وكنت بماء للذي أتدروا أفوت عن الأعداء ترى لوجه دعاهم لخير سرمدا للصاد فو علمت يخينا أنا مولاي كانني وأن المخفى من خلاني يرضو في العالية سفاغة مجير مساسد لخير ندا من خير لخيا تزلل سجيت لنا الأداي xabul mujaahidan uxaatibu manaalili Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalib yi dinaa sant yàlla julli ji yonantam bi ak yeesalaat suñu njëbal ci Serigne Touba tay di aljuma ñu nekk fii ci Touba tolloog ñaar ci fan ak ñaar ci wéru touba di janvier tolloog juróom-ñetti fan ci wéru mam koor di bis bo xamanteni ni jullit yi rawatina murid yi rawatina bi ñu doon wax daaira ismu ki nga xam ne moo nekkoon seen jëwriñ di sëriñ Atou Diagne moo wàcc liggéey gis ni ki tey jii fekk sëriñ Touba ca fa nga xam ne moo di bar sàqil Muhammadiya yal na ko sëriñ Touba boole ca ñamuy ràmmul boppam taseeg ràmmoom sëriñ Touba murit yëpp xalifa général de murit di Cheikh mun Mountakha ñëw ca suba taxawul ko boppam joxe ndigal ñu denc ko fi nga xam ne moo di bàq ya mbooloo mi nag gis ngeen ko jàpp naa ne ba nu sancee bàq ya ba jonni tey jàpp ma ne mbooloo mu toll nii masagun na fee dikk wala bu fekkee mas na fee dikk tamit gëj na fi fu nekk rek nit jóge na fa ngir ñëw fekk si denc bi te dara indiwu la lu dul bokk gi nga xam ne bokk nga kook aatu mi nga xam ne moo tëdd tey di sëñ aatu bokk ngeen ko pas-pas ci sëriñ Touba mu liggéeyal lépp sëñ Touba xam ngeen ne moom mi ngi gane àdduna 1951 51 ba 21 juróom-ñaar fukki at rek la boo xoolee fan yi ñu génn rek 2017 wala 2016 ci lan doon def 40 ans bi nga xam ne daayira Hizbut Tarqiyyah am na ko sosoo woon ci daayira bi nga xam ne mooy daayira étudiant ci loxol Cheikh Abdou Lahad Mbacké waaye turu Hizbut Tarqiyyah mi ngi feeñe woon ci ki nga xam ne moo di Cheikh Saliou Mbacké ñu yónni leen nga xam ne 40 ans yooyu ba léegi at mi ngi ci kii nga xam ne juróom-ñaar fukki atam boo ko génnee génne 40 ans ya fële da ngay wax ne bu mu amee fanweeri at wala ñaar fukki at ak juróom-ñett ki la taxawaloon daayira bi nekk ci ba tey jii mu dem wuy ji ki nga xam ne moo di Serigne Touba fekk ko fa nga xam ne fa la war a noppaloo war a dalloo tey jii nag mu doon bis boo xamante ni murid yi duñ ko fàtte mu doon bis boo xamante ni jullit yi duñ ko fàtte waaye liñ ci mën a jàng bari na liñ mën a jàng ci moom mooy mbooloo mii Serigne Touba rek leen fi indi. mbooloo mi mooy liggéey bi mu doon liggéeyal sëñ Touba moom la ñëpp mën koo seere ku nekk mën a taxaw ci wetu sëñ Touba ne mën na maa seere ne aatu sëñ aatu murid saadeex la woon ab jullit la woon waaye bokk na ci li nga xam ne daayira bi def na ko mooy njàngam xasida mi nga xam ne sëriñ Touba daf koo bëggoon ci mag ña dafa mel ni daaj yooyu ñoom ñoo ko yeesalaat te ci moom lépp ci loxoom la ba ci kër gi nga xam ne sëñ Muntaxa mi ngi koy defal xasida yi bi mu wooyee ñëpp ñu toog ñëpp toog dafa woone yow suñu aatu yow mii lay àndal ci këru xasida gi nuy liggéeyal xasida loola nag mu defoon ci jaayante bu rëy waaye nag lii mu def tey daf mel ni moom mosu ko woon a bett ci yoon wi moom bakkanam daf ko jëloon taylew ko ci yoonu Sëñ Tuubaa kañ la ciy jóge moo xam ci lu naqari wala ci lu neex lay jóge waaye na Sëñ Tuubaa am li mu bëgg rek loolu moo ko ñoroon kon nag ñu ngi koy jaale umma islaam bépp waaye di jël njaal mépp di ko teg ci loxol Seex Muhammadul Muntaxaa sax ma dul mun taxaa taxawu na ko taxawu boo xamante nii waxuma la taxawaay boo xamante nii benn taxawaay bu ko féete kaw ci yoon wi amul ndax ci suba la xëy nekk ca fa nga xam ne moo di is bu ya féete aatu fépp foo xamante nii mbokk waroon na ko fa féete taalibi waroon na ko fa féete soppe waroon na ko féete suñ mun taxaa yanu lépp féete ko fa ndax xam ne suñ tubaa la doon liggéeyal te ku damm ci waar wi moom moo war a def sa témoignage moo war a seere sa liggéey ci suñ tubaa tey jii nag jàpp naa ne lu metti la lu tiis la waaye lu sedd xol la mooy sëriñ tubaa toogal boppam ba julleel ko boppam digle ne nan ko rob fii ñu ngi nii nag ànd ak mbooloo mu baree bari ak kilifa yu baree bari jigéen ñi ak góor ñi ñëpp ku ci nekk daw nga ñëw jàpp ne li nga jàpp ne bis bi waroo toog rek mu nekkal sa kër wala nga toog di def say ñaan waaye faaw nga dikk teew barab bi waaye faaw nga dikk teew fi koy jullee waaye faaw nga dikk teew yi tamit fi koy denc ba fii nu toll ñu ngi nii Muntaxa ma nga daara ya fa la mi ñu ëpp ñëpp jëmaat ngir ñu fekk fa sëriñ bi mu war joxe bis bi nga xam ne mooy ñaan sëñ Modou yaakaar naa ne yaa ngi teew fii war nga cee mën a sànni kàddu ndax atu aatum sëñ Touba la doon woon aatu famille waaye aatu Touba la Touba ku ko liggéeyal taalibe yi ñoo la war a fay ku liggéeyal sëñ Tuubaa nag sëñ Tuubaa lay fayal boppam. waaw jërëjëf sëñ Saliou ñu la sant di la gërëm ci sa teewaay ci bis bi maa man sëñ maa ngi ko xam 2002 sama 2001 laa ko xam mais bi ma ko xamee ba su tey jii ñu xam ci moom bëgg sëñ Tuubaa bëgg sëñ Tuubaa lañ xam ci moom yoo xam ne mosuñu mosu koo yemale ak lenn lenn lenn ba moo waral mbooloo mi ñëpp toog ndax nit ñi dañoo xam bëggam sëñ Tuubaa moo bu Daaru Jaale dafa bëgg Sëñ Tuubaa kon ñëpp xam na bëgg Sëñ Tuubaa kon nag ñu ngi ko jaa jaale bépp murit bu dox ci adduna bi ak bépp jullit te xam ne jullit yëpp a ñàkk yoonu murit dina de jullit yëpp a ñàkk ndax pas-pas bi ñu amoon ci yoonu murit waaw jërëjëf jërëjëf jàmbaar tëdd na jàmbaar tëdd na ci suuf dee tey jël na ku màgg jël na ku rëy koo xamante nii ku rëyoon ci umma islaam waaye ku rëyoon ci yoonu murit jàmbaar tëdd na li rek mooy wane ne dee dëgg la ci bis bii firndeel na ne jàmbaar ndekete góor góor dëgg a koy tëral dee dong moo mën a tëral kii ci suuf waaye feebar wopp daaw ko mën a tëral daaw ko mën a gàllankoor waaye li ko daan tëral li ko mën a tëral mooy tey yàlla yebal malaaka yi ñu jël róom ñu tëral ko ci suuf kii moo dem tey waaye nag bàyyi na fi ndam bàyyi na fi wëlóor bàyyi na fi ay jikko bàyyi na fi maanaam moo xamante ni képp koo xamante nii nag xam nga ne liggéeyal sëñ tubaa rek mooy li wér ku ci nekk nag fi ñu toll xam ne na nag liggéeyal sëñ tubaa nag kenn sëñ tubaa du nax kenn kenn mënta nax sëñ Touba tey jii leer na naññe ne bis la boo xamante ni bis bu muy dajeek ab soppeem la bis bu muy dajeek sëñ Touba bis boo xamante ni xasida yi sëñ bi dañ koy teel boo xamante ni bi nga fiy jóge naal nga jàkka ngir liggéey ko jàkka ju mel ni jumaay njaareem fa lañ ko jullee moo ko naal barab bee nga xam ne fa la ko sëriñ Muntaxa doon kiyee fa la jaasim fa la waaram fala la ëllëram damme mu ñëw noppulu si fii kooku mësta noppalu kon mi ngi ci liggéey sëñ Touba sëñ Jili yaakaar naa ne xamoon nga ak Aatu ku ci nekk tey bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa waaw sëñ Saliou ñoom yaa ngi ñuy laaj ci koo xamante ni mën nañoo wax ci moom donte du bari jàmbaar dem na ku bëgg sëñ Tuubaa dem na ku nangoo liggéey dem na koo xamee bii ne amul dara loo xam ne mi ngi ko doon xaar ci liggéey bi mbaa mu ci ragal wala mu ci doon bañ a demee sagom ba ba mu jeex ñu ngi koy ñu ngi koy ñaanal ci barke Cheikh Mouhamadou Mountakha. barke Seex ah, Seexul Xadim yàlla suñu borom defal ko mu nekk ca barsàq Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam barke jërëjëf sëñ Saliou Niang. Euh, jërëjëf Cheikh euh, ngi sant bu baax di wax na lii royukaay la tey bi nu jullee ba noppi ma jaar ci waañ wi jigéen ñëpp seen rongoñ yëpp di sotteeku di dal di dal ci seen i dënn loolu xam ngeen ne kenn ku nekk xam na ne li ñuy fàttali mooy ba Seydina am sa tëddee. te yonante bi sallallahu alayhi wa sallam dikk ñëpp ñëpp yuuxu mu ne leen bàyyi leen yuuxu yi waaye liy jóge ci xol nag rangoñ kenn mënu koo téye waaye tey rangoñ ñi jigéen ñi góor ñi ña doon ñu góor dëgg tey seen i rangoñ tëdd na ba sëy naa yonante bi yonante bi sallallahu alayhi wa sallam jógee sëy naa Omar di yoru jaasi sëy naa Aboubacar nekk sëy naa Aliou nekk fee loola dafa mel ni tey dellusiwaat na tey jàmbaar dem na jàmbaar joo xamante ni moo mënoon ci tool yi waaye moo mënoon ci sëy yi ci takk ay sëy ci man tàggat nit bala mu nekkoon mu fàtte cosaanam fàtte aadaam ji nooyi sëñ tubaa di taqantiku sëñ tubaa loola tey def na ko ci daara Hizbut Tarqiyyah tey ku sol mbubb moo xamante ni mbubbum bàyyi laat la sax sa xel faaw mu dem ci suñu aatu ñoom doon ci kuréel bi nga xam ne moo di Hizbut Tarqiyyah tey jii yoonu murit xam na ne ñàkk na bàngaas bu rëy rëy rëy rëy tey fàttali nu na ba Serigne Touba daan wax ne nan ko yóbbu ca sama armele nan ko yóbbu ca sama armele ca Touba wala nan ko yóbbu ca penku njaareem sama armele ca Touba waaye suñu aatu tey tëdd na ca mag ñooña rek lañ ko mën a kaasa classé mag ñooña bu fekke woon seen jataay du ko ëppale dara te mbooloo mi wane na ne mbooloom war na ne ne pas-pasam yéegal na ko ca mag ñooña yéegal na ko tamit ci jàmbaar gi nga xam ne aw fit jom ngor mës sa war suñ Touba mës sa fecc kóllëre bis bu nekk mi ngi xaar kañ lay wuy ji Sëñ tubaa ci liggéey bi kañ lay dee ci liggéey bi kañ la bakkanam di rot ci liggéey bi waaye tey bakkanam rot na ci liggéey bi waaye fekk na Sëñ Tuubaa jox ko liggéey muy Sëriñ Muntaxaa jox ko xasida yi nga xam ne tey ci la nekkoon ba am tur yu mu am ba am fit yu mu am am ngor gi mu am tey këru xasida la tëdd tey moo fa xasida nekk fa Sëñ Tuubaa fa la aatu di tëdd fa la sëñ aatu di tëdd yal na ko yàlla wanelee xasida yi yal na ko xasida yi alawti ko ci bàmmeelam yal na boole tey ci bis bi nga xam ne di ajjuma di waxtu wii Serigne Touba boole ko ci ñi nga xam ne moo koy rammul boppam mu tëdd noppalu ji jàmbaar dem na bàyyi na fi ay gor bàyyi na fi kóllëre bàyyi na fi ay ndono yoo xamante ni yaakaar naa du duñu fecc bu buum ji nga xam ne jaayante woon nan ko ak Serigne tam nekkoon seen jëwriñ ñu ngi koy jaale bu baax a baax njaboot gi ñoom ñëpp daara Hizbut Tarqiyyah waaye di beral njaal yi bokkam yi muy Serigne Cheikhouna mi nga xam ne doomam la nekk koo xamante ni ci daara ji la juddoo ci yoon wi la juddoo ñu sóobu ci yoon wi doon koo xamante ni yàlla na yàlla àggale liggéey bi ak ay rakkam ñu ngi koy jaale mboolem njaboot gi bay wunu kenn bay wunu fenn fenn bay wun ko tey daal lii lu rëy la koo xamante ni lii jàpp naa ne nit nekk na ci yoon wi ba jóge fi màggat ñuy ay téeméeri atam wala lu ko ëpp te amut lii kon limu am ni day wat ci mom rek day wat ci seigne touba ku koy liggéeyal war nga rafetal sa yene war nga rafetal sa ngor war nga rafetal sa bop war nga jël sa bakani tamit nga wékk ko de sa bo dee rek boy dee na nga dee ci ndigalal seigne bi waaye na nga dee ci ki bi kon ñi ngi sant ñep di gërëm ñep di ñaanal ñep tank yi nga xamne mbokk mbolam dox nako ko dama japp ne sax wallahi la asim armel yi damay mëna waat wala mu mëna wax ne bobo ba légui armel bakki yi musta aw nit bu ton ni nit ñu am pas-pas ñoo xamante ni pas-pas a leen dugal ci biir armée li du mbokk leen ci dugal waaye buum gi nga xam ne jaayate na ko Sëñ Tuubaa buum googu moo leen xëcc wommat leen bu jëmmi aatu sax wala jëmmi sëñ aatu moo tax rek ñu ñëw waaye jëmmi Sëñ Tuubaa ji mu doon noyyi di ko toqamti ko di ko yéene di ko doxe di ko def nangam tey kooku moo tëdd ci biir suuf kooku lan bëgg suufas baa woyof ci kawam ñu ngi ñaan yàlla sunu borom nangu li nga xam ne doon na ko jëf yàlla jéggal ko te yàlla yërëm ko te yàlla tàbbal ko àjjanay firdaws na fa noppalu jiyoo na dem noppalu ji tëdd foofa dalloo ca firdaws àjjanay firdaws ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di baalu àq ñëpp di ñaan nag na ko ñëpp di ko dolli ay ñaan ñaan du doy kenn du ko doyal waaye na ko ñëpp ñaanal yàlla tasale ko am naa ne la ko gënal te leer na man juróom-ñaar fukki atam yii ma wax ku ko laajoon li nga xam ne suñ tubaa juróom-ñaar fukk ak juróom lañuy wax juróom-ñaar fukk ak juróom <laughs> waaye ku ko laajoon ne ko bi ngay dund ndax bëgg ngaa am lu mat juróom-ñaar fukk at ak juróom da lay wax ne la du ma ëppale Sëriñ Tuubaa ci kaw loolu ak taalibe xamoon naa ne mënta romb mu romb lu lu Sëriñ Tuubaa dund mu koy xalaata dund di dund lu ëpp Sëriñ Tuubaa xalaatu ma ne woon bés pasam ak bëgg-bëggam man na ko moo tax tey Sëriñ Tuubaa ci boppam di Sëriñ Muntaxaa te yéeneem yéeneem ci Sëriñ yéene woon na Sëriñ Muntaxaa taxawul ko boppam moom mu wut woon sax bàyyi fi sëñ mun Muntaxa jiitu sëñ Muntaxa waaye li mu yéene woon mooy jiitu sëñ Muntaxa mu taxawul ko boppam ndax mbégte moomu dong la jàpp ne moo ko dese ci àdduna te sëñ Muntaxa ko mënal waaye defal na ko yàlla na ko yàlla fayal boppam asalaamaaleykum wa rahmatullah